au à la question des inéligibilités ki frappent xalifa euh, Sall ak euh, Karim Wade ci dialogue bi Khalifa Sall dafa proposer euh, la modification des articles L29 L30 L57 bi nga xam ne dañ ko modifié woon en 2018 avant l'élection présidentielle te mu rendre leen inéligible mook Karim Wade mu am ñoo xam ne dañoo dañoo ne pour permettre à xalifa Sall et Karim Wade de compétir en 2024 nañu voté une loi d'amnistie yow lan mooy sa àtte maître Doudou Ndoye une loi d'amnistie ou juste une modification de ces disposition euh, du code du code électoral naa nga def li gën a yomb mm-hmm. c'est ëpp sens mm. li gën a yomb li gën a yomb def li gën a yomb bind mm. parce que droit dañ koy bind c'est boo juumee si bind bi def musiba mm-hmm. droit dañ koy bind de c'est boo juumee si mbind mi def si ba li gën a yomb a bind gën a yomb def mën a yóbbaale ñëpp na xam nga yaa ngi tudd Khalifa Sall ak kële dama si boole waa ji. Ousmane sonk waaw kañ lu tax du si bokk lu tax du si bokk. non moom réglé nga kaawam. kaawu kan. Ousmane ku ko réglé yow. non réglé ko parce que amul defuñu ko. non ma ne joxe nga ah, solution mais bii itam si la bokk. ñu boole si bii donc solution pour ah, bii mhm. bii. buñ ko si boole moo gën a gaaw yëppati. ah non du benn c'est pas le même domaine. bii nga wax nii pour am droit wu voter ñu woteel la. nekk électeur et éligible. éligible donc foofu la yem c'est le domaine. Mhm. article L vingt neuf trente yooyu pour loolu kese la sensé wul leneen. sensé wul dara si leneen dégg nga olof ma laal. Mhm. Karim Wade a été condamné ah. c'est bi conséquence bi mooy éligibilité conséquence bi mais condamnation baa ngi fi Khalifa conséquence bi mooy inéligibilité donc article vingt neuf article trente conséquence bi rek lay dindi au niveau de la citoyenneté de l'éligibilité leneen lépp ngi fi. ça reste intact leneen lépp ngi fi. si fu leneen lépp nekk nag mooy tu def si baax si ku mu tegu si kawam olof laa làkk de si ñoom laa bëgg ñu comprendre ma mm-hmm. hmm? kon tey li gën a yomb si président de la république encore mooma parce que lépp bu si décidé wul du am mooy saisir assemblée nationale projet de loi si lu mu doon muy amnistie muy article vingt neuf trente mais ban moo gën pour pour pour pour les concerts. vingt neuf moo gën yomb gën simple gën a gaaw gën a oyof pour ñëpp pour ñett ñëpp bokk ak keneen parce que boo nee buñ la condamné man nga wote man nga doon candidat boobu ko jeex na. ñu boobu gën a yomb lu mais bu gën lu mu doon. loo condamnation bi day des. ah mais bu yeboo moo tax ma ne lépp gi ci ah dégg nga olof na la làkk léegi. waaw léegi bu condamnation bi desee est-ce que loolu. ku si ku si gagné président dina loo neex. Ah. ah. d'accord ku si gañewul président nag dem neexal Macky Sall. wala keneen mais ce que wala keneen ku fi nekk est-ce que loi d'amnistie kon gënul lii effacé lépp. non loi d'amnistie bi moo gën a dangereux xam nga lu tax. ah bon koy mën a bind. Hmm. looy bind man de mënuma ko bind. mënaguma ko moo xaw ma bu ma waxoon bind ko tey xaw ma nu may def. Hmm. parce que kii la mu def. kii la mu def kii la mu def. kii la mu def duñ benn ah du moom nañ ko teg parce que kii ku mujj gi ku mujj gi yëfam jeexuwul mm-hmm. dama naan lañ ko teg lañ ko jiiñ ci laa ba tey ku mu gi lañ ko jiiñ laa nekk ñaar ñi ne lañ leen teg laa nekk parce que lañ leen teg c'est définitif alors kii lañ ko teg c'est pas encore définitif dañ ko ko jiiñ ba tey rek parce que bu demoon bu demoon toog tey ñu effacé ko mm. alors que ñële mënuñu toog ba ñu effacé ko donc loi d'amnistie bi di nga ne waa jëlee délit bu de enrichissement illicite la kii ñetti délit la bu tudd détournement de deniers publics corruption de ceci xaw ma lanati kii ñu ne ko yaa fooy xale yi donc <laughs> par force nga ne ku mos a fooy xale si jamono ji ku si jamono ji euh, ku def illicite si jamono jii baal nañ la man de bi moo bind loolu. c'est dangereux. man moo ko bind comprendre nga. parce que boo nee ku jël alalu réew mi si jamono ji baal nañ la mais jël alalu réew mi xamu nañ toll ku def illicite si jamono ji baal nañ la ñu def illicite ñu man leen topp xaw ma ko wala ñuy topp ba pare xamatuma leen ku tooñ xale baal nañ la mais gars yi dañ si profité balaa ñuy kii loi bi tooñu tooñ ba doy la ah ah oui pourquoi pas. c'est bon mënuma ko bind man. juriste yi ne foofu nag wóolu seen bopp nañ ko bind man ñu ma ñu bind loolu parce que plume bi nga koy bindee connaissance juridique bi ngay am ba assemblée nationale jël boobu responsabilité ne ku sàcc àllu réew mi ku mu doon baal naa la si jamono jii xam nga wax jooju moment bi nga xam ne xale yi liggéey ñu nit ñi amuñu lii nit ñaa ngi dee xiif nit ñaa ngi rey seen bopp nga ne ku sàcc àllu réew mi si période bii baal naa la ku def illicite amee réew mi tam ay milliards baal naa la nga baax loolu nag man day. mais da ngay tijji pour wax loolu. ñu ma ñu mbaax googu. dama ko mm. ñu ma ñun nag. Mm. alors euh, ñu terminé que tey mm-hmm. boo yemee si vingt neuf trente bàyyi ñëpp demee élection nga utiliser lu la neex nag nekkal candidat daan leen. donc.